Euh, daal di dalal nag euh, Doudou Dieng Doudou Dieng mu nekk membre ci parti bi di PASTEF moo nekk tamit euh, coordonnateur adjoint kuréel gi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci PASTEF Doudou réew mi FM a ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di leen ziar di ziar képp koo xam ne mu ngi liggéey fii si rajo mi FM. Euh, di ñuy seeni auditrice ak seeni auditeur di ñaan yàlla euh, suñu waxtaan bi yàlla na si yàlla def sutura te lépp luñ ñu fi wax na doon loo xam ne dina jëriñ askan bi jëriñ àdduna euh, bi Doudou Dieng ñun tam ñoo ngi am mbégte ci wuy si bi nga xamante ni wuy si nga ko invitation bi ak dëkk bi ni mu xate li ñuy njëkk a dooree rek suñu waxtaan bokk na ci kero bi nga xam ne njiitul Pastef di Ousmane Sonko Euh, moom euh, waxoon na ne daal euh, bu ñu ko convoqué moom du dem wuy ji yoon toog ba mu yàgg mu defaat déclaration wax ne dina wuy ji yoon lan moo lan nga jàpp ne moo ko waral ak ñan ñoo si dox ba mu génn ci dogal bi mu njëkkoon a jël. waaw xam nga tout d'abord ñun position boobu président Ousmane Sonko jël dañ koy rafetloo te ñu ngi koy rafetloo yaakaar na noonu la ko Sénégal yëpp rafetloo. dañoo nekk si dëkk boo xam ne dañuy wax ne Sénégal dëkku teranga la dëkku jàmm la dëkku yiw la te it ñu nekk it am suñu ngëm-ngëm moo xam diine catholique moo xam diine julli si euh, biir loolu président Ousmane Sonko amoon loo xam ne aussi dañoo xam ne sa nit ku ne am na loo moom sa bopp am na lu sa mbokk say say mbokk say njaboot moom si yow ak loo xam ne say xarit ñoo ko moom si yow euh, bi bi mu xewee. comme dañu doon wax ni dès le départ affaire privée la mais ñu jël toxal ko ci affaire d'État bi ñu nee affaire privée la moo tax moom it mu taxaw ci lépp loo xam ne waree fam la mu taxaw si doon ci àddu euh, bi ñu demee nag ba nga xam ne euh, convoqué nañ ko fee nga xam ne mooy euh, tribunal nee nañ levé nañ immunité parlementaire ñu convoqué ko moom il avait décidé au départ de maintenir li nga xam ne mooy position du départ mooy ne dama wuyu ji. parce que jàpp na ne lépp loo xam ne mooy yoon bi ñu ñi war a jaar dañ ko salfaañe teguñu ko si yoon teguñu ko si dëgg te moom loolu doon parce bu mu nee dinaa doon di bépp bu ñu ma bu ñu tegee suma kiiraay suba si 9h h ma dem wuyu ji ba mu koy wax da tegoon ne bu fekkee ne lépp jaare lañ ko si yoon mais bañ ko jaar mu ne ñett kon du dem wante comme moom it dafa dëkk si dëkk bi jox kilifa ay cër jox it ay nawlem cër bañ si waxtaanee ak moom moom it ay kilifa oo ko si dox ko si dox si waxtaan seeg moom mu gis ne ah lii yoon mooy mu may kilifa yooyu cër mooy mu may ay nawleem cër moo tax mu wëlbatiku ne comme nii la demee kat lema moom si man dinaa ko bàyyi jël li nga xam nit ñee ko moom si moom mu doxal ko moo tax mu jël dem ne day wuyu ji li nga xam ne mooy woote boobu ñu ko woon si yoon d' accord euh, mais moom Ousmane Sonko ci biir déclaration boobu tamit euh, ma ngi ciy wax ne li tax demul ci kilifa dina yi dafa xam ne ki nga xam ne mooy njiitu réew mi euh, joxul ma kilifa dina yooyu est ce que jubluwu si jaxase Macky Sall ak kilifa diine yi nekk ci réew mi. du jaxase parce que boo xoolee euh, Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi si ñi nga xam ne am nañu information yu wér depuis ay affaire xalifa depuis ay affaire Karim. boobu ba léegi kilifa yi ñu ngi see àddu si lu fës ak si lu fësul parce que am na kilifa yoo xam ne yenn saa yi sa askan wi naan kilifa yi nañu wax kilifa yi noonu gis nga kilifa yi parfois dañuy am benn comportement euh, diplomatique c'est-à-dire ñu fësal seen kàddu si kaw dañ koy wax si suuf mais ñi leen jege xam leen dëgg xam nañ lan la ñuy wax taxit xam nañ lan leen président bi tontu mais jamono yooyu gis nañ ni kilifa yu bëri ñu mel ni sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine yàlla yàlla euh, jéggal ko yokk leeram te tax si barkeem boo gisee moom daan na sa àddu mais may foraas daanu xëddeem ñi nga xam ne ñuy kilifa fa nekkoon jamono it àddu woon nañ si mayu leen yoxu leen benn benn gëdd kii nga xam ne si jamo jafe-jafe yi sax fan yi rek sànq rek sëñ mu sëñ Muntaxa yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram fan yi rek xaw tey rek maa ngi liir am kilifa yu demoon nekkoon na wax mu ne àddu naa ba ma sa walee àddu wante kii la ma waxanteeg moom respecté wu ko kon wan la ne ñàkk jox cëbam ñun xam nañ ko si lu wér si moom diggante ma kilifa yi donc amul benn yoon boo xam ne nañ jóg jaxase doomu aadama parce que ay jullit lañ te it président Ousmane Sonko am goo xam ne du jël xam ne lan mooy si jaxase ay nit lan mooy si wuru ci ay nit kon loolu du ko doxale la mu def mooy li wér mooy ne dafay doon protéger suñu kilifa diine yi si seen orma orma goo nga xam ne nit ñi jox nañ leen ko kenn bañ ko salfaañee kenn bañ ko teggi moo tax mu ne moom du dox du dem di si ñoom di leen wax leen donte leen ñoom am na ay ndaw yu ñëw si moom waxtaan ak ñoom moom mu wax leen li nga xam ne moom la xalaat si mbir mi mais président Macky Sall du koo xam ne day joxe day jox nit cër du koo xam ne day jox nit war a wate suñu kilifa diine yi saa saa sax nit woo ko kilifa diine woo ko mu làqatoo benn mbir ne la waa baax na li nga wax dégg naa ko incha allah dinaa ko def mais nañu bàyyi yoon def liggéeyam ba pare parce que su ma si dugalee suma loxo jamono yi dañuy naan président bi def na nangam def na bu ñu demee na ba yoon pare la ma sama la nga xam ne yoon may na ma ko boobaa ma def ko mais boobu day fekk summin na ba nga set sa lépp droit teggi nañ ko ba nga xam ne li mu bëggoon si am nañ ko mu jékki-jékki ne may naa ko euh, li li yoon di wax naan euh, euh, grâce mum fu mu dem yoonam. donc fekk ne amatoo benn benn benn cër amatoo lenn kon loolu ay waxu tappale ay laqatu si ay wax la pour def li mu bëgg def mais la mu mat. dina ko dagg moo tax kilifa yi nag commencé nañ ko xam si moom moo tax fi mu ñoom ñëpp it dañuy màndu si ay mbiram si lu bëri te bu boobaa nag day daal di doy waa si réew mi parce que kilifa yi nag am nañ fi kàddu am nañ fi kàddu ba Sénégal doon Sénégal ba léegi kilifa dafa am taxawaay si biir kër am taxawaay si pénc am taxawaay si biir réew mi kon loolu ne ko bàyyee xel. ñu daal di euh, wax ci li nga xamante ni tey mooy euh, mujjee naa def déclaration moom Ousmane Sonko wax ne dafay wuy ji euh, ba tey ñoo ngi ci ci logique boobu bim na dafay wuy ji xëy. war a dem wuy ji juge Mamadou Seck ñu convoqué ko 9 heures ah, convocation bi sax section de recherche ci li ñu ci xibaar yi moom moo moo wax ak maître Khoureychi Ba. maître Khoureychi Ba ci ndigal Ousmane Sonko mu déchargé li nga xamante ni mooy convocation boobu ñëpp jàpp na Ousmane Sonko bu xëy de wuy ji ba mu xëyee noonu la ko defee mm, ànd ak nit pour dem wuy ji ca tribunal. mais euh, duudu li ñu jaaxal mooy convoi bu mag a mag a mag moom la Ousmane Sonko euh, àndaloon mel ni kuy def mitin mel ni kuy def campagne euh, ci ab wuy ji. Euh, loolu lu ko waral. Euh, li ko waral yomb na xam nga nit su la askan bi wala ñenn ñi si askan parce que mu ne askan bi yëpp parce que am na ñoo xam ne seen seen seen kàddu ak seen mbir ñu ngi ko dénk mag yi ñii ñu ngi ko dénk Idi ñu ngi ko dénk keneen ak keneen mais ñi nga xam ne ñoom gëm nañu ki nga xam ne mooy projet bi Pastef am parce que Pastef projet la boo xam ne ay nit ñoo ko ñoo ko xalaat tëgg ko teg ko mettre ko sur pied ba ñu defee lu mel noonu. ñu seet ku leen doy ñu dem dox ko wax ko parce que dañuy fàttali sénégal yi ne Ousmane sonk du moom moom moom parti Pastef Ousmane Sonko du moom moo créé Pastef Pastef ay nit ñoo xam ne bañ koy créé Ousmane Sonko sax président Ousmane Sonko new fa ñoo créé projet Pastef toog di xalaat kan moo leen wala jiite si la xel yëpp demee si Ousmane ñu dem dox ko waxtaan seeg moom bi mu si waxtaanee ak ay mbokkam ak ay xaritam si la wëlbatiku d'accord ne moom mën na ñëw gàddu lii nga xam ne moom mooy projet bi kon kooku boo ko jëlee yan ko yan. si yan boobu nga ko yan ay jafe-jafe fekk ko si yaakaar naa ne bu dee gor ak kóllëre am na ñooñu wël nañoo ñëw gunge ko sa la nga xam ne mooy jafe-jafe boobu kon tey ji lenn rek la woon Sénégal bi ñuy jóg di ñëw si Ousmane président Ousmane Sonko ba muy jógee këram amul kenn ku fa ne moom ak ay yenn oto la yoo xam ne ay ay ay ay avocat ak yenn ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, entourage am ñoo fa ànd te loolu muy jaadu ñu jóg di ko gunge te boo xoolee ba ñu koy gunge commencement bi ñoom foofu lañu di ko commencé ñu fatt benn koñ ne koñ bii ngay jaar amul problème mu jaar koñ boobu. ñu demaat ba si yoon ba ñu fattaat beneen koñ ne koñ bii ngay jaar ñu gars yi négocier négocier ñu àndaat ba nee ba si ñetteel bi nag ñu gis ni ñii nag la ñu bëgg mën ta demee noonu lu ñu topp seen waaw parce que ki leen wuy wuyu jël yow nga jóg di ko te ba muy départ këram aussi nañ fàttali ko ne jóge ne fa avant 9 ak ju avant 9h vers 8h et la fa jógee. départ pour uti ji li nga xam ne moo uyu bi ba mu demee ba si yoon bi nag mais askan bi kenn moomu leen moom it kenn moomul askan bi askan bi génne seen bopp ngir gunge ko si mbir moomu li gënoon yomb mooy ne lii nga xam ne mooy kilifa réew mi nga xam ñoo yor doole ji ñu ko escorté ko ak ñooñu ñooñu de parce que boo xoolee ndaw yi fa ñëwoon ñëpp amul kenn ku fi yor xeer amul kenn ko xam ñëw na taxaw si pour fës kenn jàmmarloo loolu rek war na woon ne ñoom jàmm la ñuy jox te damay faral di fàttali ñi mën na leen ba fan yi passé président Ousmane Sonko dem na fi nga xam ne moom mooy université tàggawul kenn ñëw ni doon seet ay ndawam yu gaañu mais spontanément étudiants yëpp génn askan bi yëpp génn ñëw dajaloo fa te si bi dajaloo boobu dem na ba tas kenn génnul toj kenn déggul yàq kenn déggul dara bu waaye ne sénégalais yi bu fekkee ne bàyyi nañ leen seen jàmm ñu manifester li nga xam ne bëgg nañ ko wala ñu doxal li nga xam ne bëgg nañ ko du am benn problème donte ne am na jamono yoo xam ne dañuy wax na ay jamono couvre-feu ay jamono état d'urgence yu mel noonu wante it am na foo xam ne bu fa tolloo da ngay bàyyi nit ki te pour rappel Sénégal boo xoolee euh, euh, euh, le cas d'Idrissa Seck amoon na fi ba mu dem duuy ji ñi ñu ko gunge ba mu àgg parce que loolu it mooy wane ne man mi kat ñii kat. mu jiital ba ma gersoo gis naa leen parce que man tey jii bu ma jiitoon si benn biir ma am si ay jafe-jafe gersu ña nga xam ne ñoom làq sikkoon gisuma ko bu ëllëgee su fekkee ne gor laa dinaa leen bàyyi parce que dama xam ne ñii kat amuñu kóllëre amuñu amuñu ngor loolu moo taxoon sénégalais yi si yenn yi nga xam ne gëm nañu projet bi ànd ak moom si loolu pour gunge ko fa nga xam ne fa la jëm ko ne wéetoo si te it ñu ngi lay ñu ngi lay apporter suñu soutien te ñu ngi lay ñaanal loolu rek la sénégalais yi jógoon moo tax na bu président ak i ñoñam jële affaire bu ko salfaañe bi ngi euh, catastrophe bi si réew mi loolu nag wax dëgg fa yàlla ñun ñu armée yoruñu police yoruñu jool ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo doon encadré. pour ñu léegi euh, euh, Doudou lan moo tax euh, président Ousmane Sonko bi ko préfet bu Ndakaaru waxee jaareel ci corniche bi moom mu ne dafay jaar ci fi nga xam ne tey mooy avenue Cheikh ci buntu université Cheikh Anta Diop est-ce que tamit foofu bu fa jaaroon tey embouteillage mënu fa gën a bëri ak lan moo tax mu lànkoon a jaar ci li nga xam ne moom mooy moom mooy ci ci corniche bi. waa xam nga xam nga ñoom dañuy wax ne damay dégg yenn saa yi ñoom seen i kilifa yi ñu naan. ñoom am nañ ay renseignements ñoom ñoo nangam moo tax fu ñu wax nit jaafa na nga fa jaar parce que xëy na am mais ñoom ñi ñu amee ay renseignements ñun tamit noonu la amee ay mais nit ki xelam mën na tey fu pour jaar fenn xele mën na fa tey ne duma jaar fii parce que it si si si si ay xibaar yu ñu dikkal foofu foofu ñu wax naan euh, mooy corniche bi amoon na ay euh, si yenn xibaar yoo xam ne jot nañ ko amoon na ay néer bi mënoon na fa jaar ay ay scandale am fa euh, dóorante am fa xeex am fa. mu ne dama fay daal may jaar fii nga xam ne fa la ñëpp di jaar fii nga xam ne dafa leer nañ te ñu ne fii parce que lépp loo gis dafay laaj ay témoignage fële dafa wéet fii wéetul nag jaar li gënoon a yomb si nguur gi daal mooy comme ñoom indi nañ seen bu ñu ko xàllaloon yoon bi escorté ko comme kuy escorté ñuy def seen marche dina doon dem rapidement dem wuyu ji parce que loolu ñun moom la ñu bëggoon si moom te it moom loolu la amuñ yéen def ko kon li ko guddal ak li ko gàttalem ñoom ñoo bëgg lii ñoom ñoo tardeel mbir mi mais buñ ko bàyyoon parce que sànq wax naa la sa mbir wax président Ousmane Sonko dem na université adduna bi yëpp génnee fekk ko fa te pourtant ba mu paree déggoo kenn ne am na fu ñu xoos am na am na fu ñu gaañ kenn yit après tas nañ ku nekk dem sa yoon te boobu police taxawul kenn taxawul lu mel noonu nag bu amoon suñ ko xàllaloon rek mu jaar du am benn embouteillage te dina dem. mais euh, Doudou Dieng. Euh, ñu fàttali mbokk yi ñuy déglu yow yaay euh, coordonnateur adjoint kuréel gi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci Pastef yow la ñu invité tey ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi mais Doudou yaa ngi wax sànq que ne nguur gi ñoom am nañu information c'est normal c'est normal mais yéen tim am ngeen ay xibaar ndax yéen da ngeen a amoon li nga xamante ni mooy ay xibaar. que que Ousmane Sonko bu jaaree ci fi nga xam ne mooy corniche bi problème mën naa am wala da ngeen amoon ay xibaar ne am na ay nervi ay ponkal ñu yor ay ay ngànnaay euh, ñu koy xaar foofu ndax information boobu da ko amoon. waaw moom laa la sax ma ne xam nga foofu ñun am nañ inf am nañu yenn information yoo xam ne ñun gis nañ ko tax sax lu am na apes lu lu wër la parce que lu ñu gis la si biir dëkk bi ay nervi yor seen i yat yor seen i ngànnaay. n'est-ce pas di ànd ak force de l'ordre yi di dóor askan bi waaw di menace askan bi ñuy sax yenn saa yi man am na ñoo xam ne fekk naa ñoo xam ne dañuy ñëw di bay saaga yor ay yat euh, dégg naa si kilifa gi nga xam ne moo jiite ku moo yor euh, euh, li nga xam ne moom mooy sécurité réew mi di wax ne ñoo ñoom xamuñu néer bi li ñu xam mooy ay police civile police civile du yor yat police civile li muy yor yenn saa day yor ñi nga xam ne moom mooy pistolet parce que dañ ko xam nañ lañ mooy civil ak lañ mooy ñi nga xam dañuy mais ñi ñu gis c'est des nervis c'est des gens yoo xam dañ leen recruter pour ñu def naka sa dul noonu parce moom lu ñuy teg bët la lu ñuy filmer la. lu bi. mais mais bien sûr parce que nit ñi au moment u ñi ñaa ngi jëw di ñëw gis nañ ne nervis yi engagé nañ parce que gis nga nit ki da ngay dawal sa xel da ngay ñaaw njort gis nga ñaaw njort dafa bokk si doomu aadama. tey boo ñaaw njort ne man fii du ma fa jaar parce que dafa wéet parce que lu nekk mën na fa arrivé je préfère passer parce que ñun aussi suñu sécurité. waaw mais mais mais Doudou Ousmane Sonko dafa bañ a jaar ci corniche bi. Mhm. ngir sécurité am. Mhm. Euh, wala dafa bëgg a jaar ci université Cheikh Anta Diop. pour mbaay mi ak xumbaay mi gën a bëri. déedéet déedéet président Ousmane Sonko soxlawul mbumbaay soxlawul euh, fi soxlawul dara parce que bu muy jur buntu këram woon sax ne ay nit ñu ngi koy xaar si mbedd xam lan lan la bëggoon mooy jaar foo ne sécurité am fa la xelam gën a dal parce que biir avenue boobu mu jaar si biir nit ñi moo ko gën a wóor moo gën a dal xelam moo tax ñu ne nañ fa jaar. d'accord léegi gis nañ euh, ci euh, jàppante boobu préfet bu Ndakaaru. Euh, daal di ñëw yëkkati ay kàddu euh, wax ne Ousmane Sonko dañ koy indi li nga xam ne mooy mandat ne euh, préfet bi tamit waxoon na fa yeneen kàddu yoo xamante ni bëri na ci presse bi ñu ko ñaawlu wax ne na gendarme yi gazé ñi nga xamante ni ñooy journalistes yi léegi ci biir loolu ci la ñu jël Ousmane Sonko dugal ko ci ab oto dugal ko ci oto GIGN yóbbu ko fi nga xam ne mooy section de recherche Euh, ñenn ñi jàpp ne niñ ko jëlee foofu noonu jaareewoon yóbbu woon ko tribunal moo gën a gàtt. Mhm. wala moo gën a gaaw que section de recherche. Mhm. ñu ko si euh, mais jàpp yóbbu boobu lan moo ci sa xalaat. waaw parce que xam nga euh, soo xoolee dossier bu njëkk bi ñoo xam ne li si biir buñ naxantewul bu ñu waxee sénégal yi dëgg xamante li si biir. et c'est domage quand ba mu agsi fii ba yàqu-yàqu yëpp di am si réew mi xam nga dossier boobu bi ñëwee ba foofu boole ko ko parce que ñoom leen rek lañ bëggoon mooy. am yeneen. ci tuuma yoo xam dañ ko koy takkal. donc si biir taxaw boobu xam nga ki taxaw ñu naan laan euh, ñu ñu ñu déclaré ne kii kat actuellement mu ngi def li ñuy wax naan day manifester si loo xam ne yoon may ko hmm. dafay assister si benn dafa oote xaw ma lan nag seen wax yu bëri ñu tegal ko ko. appel à l' insurrection tout à l' homme public yow koo xam ne yaa koo muy dem say nit ñoo ko téye ngeen ne mu toog si biir oto ne di ko troubler troubler a troubler ordre public xanaa kay boo jàppoon si seetaankat yow wala si ñaka topp sax nga nii dañoo troubler mais moom ñu jël ko si loolu lañ ko jëlee parce que dañuy wax ne quand a délit loo xam ne dafa fis saak loxo si biir saak dañ naan coppet yóbbu même bu fekkee député la si lañ ko ne coppet yóbbu ko li nga xam ne mooy euh, section de section de recherche mais nag comme li comme li nga wax li gënoon yomb mooy comme kii day dem preuve sàngam kay te ñoo bëgg nañ mu gaaw nañ ko nañ coppat yóbbu ko devant le juge mu jeex tàkk mais pour wan la ne seeni pexe euh, pexe ndëgg sërëx lu ne ak pour jëm ko euh, faagaagal jëm ko écarter si li nga xam ne mooy seen politique bi si lañ ne te loolu nag su fekkee ne yàlla mi nga xam ne mooy sàkk doomu aadama moom mi ko sàkk tracé ko destin am bu fekkee ne ñoom mën nañoo rey yàlla rek defe naa ne la nga xam ne moom la yàlla dama si moom duñ ko du du du antu moo tax tey li ñu bëgg daal mooy ne loo ñu def dañoo jàpp ne euh, kidnapping la maanaam jël nit këf ko yóbbu ko làq ko def ko jaay ko doole yóbbu ko ñun loolu lañ jàpp si mbir mi si nga xam ne moom mooy complot bi nga xam ne depuis le début lii ñëw tegu si. waaw waaw mais euh, Doudou ki nga xamante ni nag moom mooy euh, moom mooy préfet mm-hmm. est-ce que tamit amul ay sañ-sañ yoo xam ne tey. Euh, war naa mën a wax euh, nit ki na ko oto ku yor oto mu ne ko wala nit buy dox mu ne ko jaaral nii euh, mu jaar foofu amaana tey préfet am na information yoo xamante ni Ousmane Sonko amu ko préfet mën am information yoo xam ne bu Ousmane Sonko jaaroon tey biir université buntu université wala avenue Cheikh Anta leneen ak leneen mën naa am est-ce que préfet su la santee nga bañ a def loolu tamit wala nga wala wala nga sookee ko ndax. préfet li mu wax sax mooy Ousmane Sonko day joué maanaam di bañ a yeexam taloog euh, xeet yooyu est-ce que loolu tamit euh, du woon mbir moo xamante ni tey mën nañu koo tuumaal comme li ñu koy wax ne trouble à l'ordre public. xam nga ñun dem nañ ba gis na bi ñu defee convocation bi 9 ñu ñun am na si benn jàngat boo xam ne dañu ne xëy na kii li tax ñu def 9 xam nañ ne peut-être buy dem dina am ñu ko gunge xaw a yéex. moo tax xëy na peut-être sax dañuy jàpp ne audition mën na dem commencer à 13h pour mën ñun. dañuy toujours am njoxtu lu rafet si ñoom moo tax ñu ne xëy na 9h bi 9h xëy na kon da ngay jàpp ne xëy dañuy dañuy c'est pour avec le temps que ça prend et cetera mu dem donc ñun vraiment on avait une bonne intention njoxtu lu rafet la ñu amoon si si si si loolu yëpp ñoo doon def mais xam nañ ne préfet aussi c'est bras bras bras wu ministre de l'intérieur la te ministre de l'intérieur depuis affaire bi depuis bi mu bi ñu ko fi tegee ba léegi xam nañ la mooy taxawaayam par rapport ak yi nga xam ne mooy Pastef donc moom bras armé représentant euh, ki nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur moom mooy seen chef mais li mu ko wax moom lay ñëw def mu neex ko mu naqari ko moom lay doxal donc ñun li ñu jàpp mooy ne li gën a ñomb daal si ñoom mooy doon ñu encadré ko vraiment mu gaaw a dem parce que bu ñu naan foofu dafa am mën na am ay ay jafe-jafe mais GIGN lañ génne xoolal GIGN si lan lay génne si ay terrorisme ay nangam ak nangam si affaire yu grave tey ñu génn ko si lii nga xam ne tey c'est kenn ko xam mooy jóg di wuyu ji comme ñoom ñu wax naan un citoyen comme tout le monde moo jóg di wuyu ji mais un citoyen comme tout moo jóg di pourquoi ñu génne ces gros moyens là pour rek euh, euh, euh, comme génne nañ ko nañ ko encadrer nañ ko protéger rapidement mu jàll université rapidement dem yoonam. Ah. parce que bu dul woon dara it étudiants yi mën nañoo génne dem xaar ka faneen. waaye ñu ah. fekk ko këram. léegi bi nga xamante ni nag yóbbu nañ ko chaque section de recherche yéen waa Pastef yéen nu na ngeen ko tuddee dañ ko kidnappé dañ ko enlevé. Euh, yooyu yëpp wax ngeen ko léegi euh, bi ñu ko yóbboo section de recherche euh, gis nañ ne dañ ko fa def li nga xam ne mooy garde à vue tuumaal ko trouble à l'ordre public waaye foofu ci bi ñu koy auditionné ci section de recherche moom ci kanamu avocam dafa lànk ne du wax ak ñoom loolu amaana am na si sañ-sañ mais yow noo ko commentaire lan moo tax mënutoon a wax ak ñoom bu ñu ko laajee. waaw euh, xëy na du ma sori parce que euh, information xaw na ma rëcc mais li ma si mën a wax mooy ne Ousmane xam naa ne si quelqu'un qui est euh, qui est réfléchi bu am xel la macha allah te it xam naa ni jàng na jàng na droit c'est un juriste de formation lu mu bon bon am na si ay lijaasa xam naa bu fekkee ne dem na ba si devant fële section de recherche enquêteurs yi ñu pose ko question devant son son avocat. ki ki moo ki xam moo koy représenté mu ñëw nangul tontu rek c'est parce que am na leneen loo xam ne xëj na ñu comme on n'est pas dans le secret des dieux man na moo ko moo ko pousse mu a tontu mais euh, li si am solo daal mooy ne moom kilifa la dem na wuyu ji ay kilifa bu ko kilifa yooyu laajee loo xam ne xëy na mbalu see mën a tontu du si du si du si tontu parce que it lu tax it leneen mën na ne parce que moom foofu du woon jëmuñu ko jublukaayam foofu ñu ko yóbbu du woon jublukaayam fa doon jublukaayam mooy. le le président di kii nu mu tudd euh, huitième cabinet fa lañ ko waroon yóbbu ñu yóbbu ko fii mais moom mu war a dem marché nga yóbbu ko nga yóbbu ko école mais bu dem école lu mu fay def du fa def daa bon que ne yow lu lu ma ne dafa naan moom son problème mooy lu mu indi école man wala moo ñëw école li ma war wax maa ngi ko war a wax marché wala maa ngi ko war a fële donc loolu bokk na sax si lii tax moom bu demee foofu du fa wuyu parce que xamul la fa la ko fi indi notifié wuñ ko ko kon du tontu ñooñ mu jàkkaarloo la muy tontu mooy fa nga xam ne fa lañ ko yoo woon bu fekkoon dafa jàkkaarloon juge bi ay avocat am toog ñu laaj ko tontu boobaa kat ñu mën see wax mais lii moom ñu war la yóbbu point A ñu yóbbu la point Z non de A à Z dafa am y une différence moo tax foofu moom bu demee effectivement warut a tontu ña nga xam ne ñoom ñoo koy laaj. léegi euh, tontuwul moom Ousmane Sonko dossier bi ñoo ngi ko euh, joxoon euh, juge Mamadou Seck huitième cabinet mm. Mamadou Seck. Euh, jot naa def ay audition ko ci mel ni euh, Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi ak euh, Sidi Ahmed mbay ak xale bu jigéen bi nga xam ne moo tudd aji Sarr mm-hmm. mais ñu mujjee ci xibaar yi ñu jot mooy juge Mamadou Seck dafa mujjee bind premier président cour d'appel Ndakaaru jox ko dossier bi ñu jël dossier bi jox ko juge Samba Sall jox ko boobu lan moo ci sa xalaat. ah xëy na ku xëy dafa dem ba si biir xam ne lii <laughs> mbir la moo xam ne bu fekkee ne kuy nar a ëllëg ak boromam ku nar dugg si biir bàmmeel xam ne dinañ la fa laaj te dina la àttuwaat lépp loo àtte la ko àttuwaat ba mu demee ba si biir xëy na xam ne lii mbir mi du mbir mu leer du mbir moo xam ne nit war na see euh, defloo nit lenn xam naa si la ko yàlla dimbalee mu teel see génne ndaxte it am na yoo xam ne ndimbalu yàlla la waaw ndimbalu yàlla parce que na see dugg. Euh, def si la nga xam ne moom lañ ko ko siy sant parce que am na si ñoo xam ne euh, si si si si ñi nga xam ne ñooy àttekat yi ñoo xam ne ils ont leur indépendance du ñu seet ma sàmba du ñu seet ma dem dañuy àtte seen aqulaay taala am na ñoo xam ne nag toujours y a la main invisible de kii nga xam ne ñooy nguur gi ñoom dañuy dugal seen loxo boo xam ne di doxal affaire yi yow mu mel ne yaay doxal fekk ne yow marionnette nga bu taxaw fii rek di wax fekk ne kay wax mu ngi sa gannaaw kon xëy na moom loolu la bañ a layoog boppam boromam ëllëg moo tax xëy na it ak ndimbalu ay mbokkam ak keneen ak ñeneen mu mu teel a génn si dossier bi parce que xëy na lam sa doog lam sa jot a dégg ak lam sa jot a xam xam naa doy na ko sëkk sëkk sëkk mu xam ne yoon ban ko nar a jaarloo du yoon bi gën mu teel see génne bàyyi leen ñoom ñu àggal seen i mbir. Euh, léegi juge Mamadou sekk moomu dafa bokkoon ci juge yi nga xam ne Ousmane Sonko. bi mu defee déclaration daf ko attaqué woon wax ne du juge bu moom boppam du juge bu tëddee njaaxaanaay kon euh, li nga wax ni ak li Ousmane Sonko waxoon daf may xaw a jaaxal tuuti. déedéet du du amul wute amul wuute xam nga nit say mbokk dañ lay dimbali nit di naan doo lay jël ndox gis nga nit mën nga nekk si yoon boo xam ne xëy na au départ kenn xamul ko juge Mamadou Seck xëy na am na ñoo am seen moom information am na keneen ku mën am information mën nga am si moom benn. Euh, une benn kii xibaar bu positif comme mën nga am si moom benn xibaar bu négatif selon la personne. tey ki nga xam ne am na si moom xelam teey na si moom si àtte te yoon may la ne kii kat bu sa xel teeyee si si si moom am nga droit ne ko man ci bugguma mu mu mu ma loolu yoon mayee na ko si loolu rek la Ousmane tënku pour ne man bugguma kii àtte ma peut-être xibaar yi mu am si moom la man xaw ma juge Mamadou Seck mais comme présentement Ousmane Sonko ak statut am ak yi nga xam ne ay information yoo xam ne moom mën na ko am te ñun nañu ko am moom xëy na moo xam ne li tax mu ne man kii bëgguma mu atte ma laneen li si nekk mooy buñ nee ba sa biir ki nga xam ne mooy juge Mamadou Seck bu fekkee ne ay mbokkam parce que moom it li ma la sànq dama nit ku ne am nga loo moomal sa bopp am nañu say mbokk moom si yow ak say xarit na ay mbokkam ay xaritam parce que man jot naa si xibaar ne ay mbokkam ak yenn ay sëriñam sax ñoo wax ak moom si dossier bi ba mu génn si kon kooku it wax dëgg fa yàlla def na li nga xam ne mooy waru garam parce que lam moom si moom bàyyi na ko def la nga xam ne moom la koy mbokk te gis nga boo defee li say mbokk wax ak li say xarit wax say am di jàmm lu si ëpp boo ko boo ko toppee yàlla mën na see dimbali nga génn si ak sutura xëy na looloo ko yàlla suturaale ba mu génn si ak jàmm si mbir mi. léegi euh, juge Samba Sall juge Samba Sall mi nga xamante ni tey euh, moom lañu jox dossier bi euh, juge Samba Sall dafa convoqué Ousmane Sonko kero mm. pour mu si ko 17h. Mm. bi mu ko convoqué nag wuysi ma 17h. pour da ko yónnee pour comparution mu ñëw teew Ousmane Sonko moom itam lànk wax ko na ko man moom sama bopp ndax dañ ma eh, def garde à vue maa ngi ci loxoy loxol buur kon sañu maa dem ñu yónnee ko li nga xamante ni tey mooy ab mandat d'amener ñenn ca ay am jàpp ne loolu kafuyaas lañ koy tuddee sax ñoom ci wàll woowu mais lu mel noonu tamit eh, Ousmane Sonko di lànk ak di leen tegal ay bagages lu wenn loolu eh, lu mu si jublu waaye jublu si daal pour wane ne pour wane ne ñii li ñuy def xamuñu ko pour wane ne ñii dafa mel ne ay Euh, ñoo xam dañuy dañuy làmbatu si li ñuy jëf xam nga yow nit mooy li ma sànq nit ki nga ne ñëwul uyu ji muy uyu ji nga dogaale ko si yoon ba pare ne day trouble à l'ordre public muy benn mooy wax ju yàqu moo tax ñi ko dégg yëpp dañ naan lii nan la mën a nekkee ñii kii nañ ko bàyyi mu dem yoonam nga jël ko yoon téye ko jël ko enlever ko yóbbu ko fenn dëj ko fa nga ne ko ñëw uyu si ma 17 mu ne déet man kay doo loolu tam wax da nga war a wax ñooñu kay ñoom ñoo ma mën a bàyyi parce que man si loxo si loxo buur laa yee loxo buur boo si nekkee kay yow booy waxal waxal ak buur bu fekkee yow yaay buur sooy waxal waxal ak say naataangoo buur mais moom amatuñu nekk ñëwul texte parce que bu joon ñu foofu ñun gars yi danga ko foo jëm toogal donc logique pour logique li muy tontu mooy liy dëgg mooy wane ne ñoom fa ñu war a jaarale mbir moo tax sax dama la wax si mi wax Ousmane président Ousmane Sonko dafa jàng droit la nga xam ne fa la jaarale fan lañu war a jaarale mbir bu ñu ko fa jaaraloon xëy na tontu yëpp ay ping pong yooyu du sax mais ñoom bu ñu defee seen mbir dina leen tontu tontu bu leer boo xam ne bu ñu ko bu seen nopp rek nañ xam ne ah yay foofu la fa am mooy mandat d'amener ñu xëy suba teel jël yóbbu ay 4 heures matin 4 heures et quelques mais li si gën a doy waar mooy boo yóbbu nit kay te mu am ay avocat te yoon constitution bi may ne soo fekkee da nga jàpp nit commencement ba fa nga xam ne mooy mujjante bi toujours nag war nag avocat am war na ko di assister yow tey nga jël ko yóbbu ko avocat am yëguñu avocat ñëw fa di ko seet gisuñu ko ku ñu laaj ne ah xamuñu fu mu ne mais loolu doy waar la parce que lu ne mënoon na ko sebek sécurité am sax newoon ne euh, mënoon euh, mënoon nañ ko mënoon nañ ko caxat caxate kon tey mu ñëw tribunal gars yi dem tribunal jaaye dem section réer fu nekk ñu dem fa même tribunal jëf fu ne gis ñu ko ba benn moment la li ñu jékki-jékki gis ko ñu am fu ko génne muy déplacé dem fa donc nëbbatu boobu ak laqat boobu moo tax ñuy wax naan kidnapping la sànq dañ ko kidnappé euh, euh, si si biir ay askan te am ay droit am ay yelleef te li ko jàpp yëpp présomption la dafa am présomption d'innocence loo xam ne dañoo yaakaar ne lii moo ko def. yaakaar kese la amul leen lu ko fiir naa kon loolu nag waroon nañ ko bàyyee ay àqam ak ay yelleefam mu mën ko doxal kon tey jii bi nga xamee ñoom yóbbu nañ ko finalement euh, euh, ay avocat am gis ko yóbbu ko si bureau juge juge tëju fa ak ay gendarme ñoom ñu fag ni day àpp dañu ubbi kii euh, pour au avocat yi ñu teewee defuñu ko. ñu continuer ba avocat yi def fay scandale oo it seen seen seen ordre de euh, bâtonnier bi pour ñu ñëw wax si si bi si ñëwee nag wax si la doog am conscience xam ne li ñuy def nii c'est très grave si la doog a bàyyi après jéem a relancer waat affaire bi ne ko pour ñu delloo ko ba ba ba ba lundi. d'accord léegi euh, Doudou Dieng euh, Ousmane sonk mi ñu jëlee section de recherche ci heure boobu ci guddi googu xaaruñu ba fajar ay avocat am xamuñu fan la nekk est-ce que am ngeen xel mu dal ci wàllum sécurité am non ñun moom du ñu a am xel mu dal si ñii parce que dañuy jàpp ne lu nekk rek capable nañ mais nag comme ñun man ñoo nekk si place ba kenn koy dénk mooy yàlla parce que yàlla moom fépp ñu nekkul moom mu ngi fa te fa mu nekk moom bu fa nekkee rek te bu ko yàlla jàppalee yàlla suturaal ko rek incha allah rabi lu leen leen du ko dal mais ñun amuñu xel mu dal te suñ xel du mës a dal tant que parce que xam nañ suñu waay lan lu mu koy duggee nan la mel te it ñoom it pexey euh, pexey pexey nguur <laughs> dafa doy waar parce que ñun ñëpp xam nañ l'histoire des états nan lay demee moo tax ñu suñu xel du dal tant que ñu ngi def surtout nag seen euh, euh, euh, yëfu laqatu yi ñu def ces jeux de cache-cache yi ñuy def loolu moom day teel xel. waaw mais mais est-ce que tamit jubluwuñ si woon teel ko yóbbu ndax ñu xam ne bu ko fa 9h fekkee section de recherche nit ñi mën na ñëw bëri foofu ba nga xam ne yóbbu ko tribunal dafay jafe. waa mais yu mel noonu aussi nga waxtaan ak ay ay kiwam ay ay ay avocat nga wax seek ay avocat parce que avocat yi ñoom war nañoo xam seen client fan la si lan la ne fan la war a dem fu mu war a dem bu ñu duñ nekk di làmbatu cest mooy li may wax ne cest lépp li ñuy def rek dafa am loo xam ne dañ koy bàyyi te boo ko bàyyee rek mu tey xel bu fekkoon oo nañ seen avocat ni leen gert ah bu subaa de pour bañ euh, li fi amoon jaxasoo yeeg wala coowalee noonu duñ ko bëgg teel a jël rek teel ko indi place sangam bàyyi ko fa bu ko defee avocat yi ñoom dañ xam ne lii la mais avocat yi nga xam ñoo ko jege war koo assister ñoom xamuñu fu seen client mais nga la mais foofu nag xel mu tey dafay am xel mën na tufaa dal même ñoom nee nañ dem nañ ci bureau euh, juge bi euh, Samba Sall fekkuñu ko fa aussi ñu laaj sàmba sàll mu ne leen sàmba Sall na leen euh, maanaam xawuma fan la nekk mais loolu te te te xanaa ki koy jëlee fële section de recherche ab mandat d'amener ne nga koy yóbbu te mandat ne boobu Samba Sall moo ko santaane kon kan moo ko fa war a jëlee même même bu fa jógee Samba sàll war na gëstu xanaa kan moo ko fa jëlee. waaw mooy wane mooy wane ba tey li tax suñu xel yi tey parce que boo nee ba tey mel na ne nguur gi ak ñi nga xam ne ñooy doxal yoon ñu ngi foye yoon te yoon kenn du ko foye parce que yoon mooy cislaayu euh, euh, dëkk. yoon mooy li naan kenn mbaar gis nga kenn mbaa bu kenn nga dammee mbaar muy ndërmeelu moo tax tey dañoo dem ba fi jamono tey yàlla jonn tey ji kenn wóolootul yoonu Sénégal. donte leen mu ngi fi ba tey mais wóolute gi dafay des si askan bi te lool nag dafay de grave si réew sëñ Cheikh Al Maktoum yan yàlla yokk leen daan wax ni réew moo xam ne amul justice moom tiital na ko jaaxle na si te loolu dafay jaaxlal bépp képp koo xam ne doomu réew nga moo tax ñun li ñuy wax état bi mooy nañ xam ne euh, lii nga xam ne mooy yoon lii di justice kenn du ko foowe kenn du ko foowe parce que boo ko foowe si réew bu ëllëgee anarchie moo fay am ku nekk yaa doon sa sa sa sa sa sa justice su bopp ku nekk yaa koy defal sa bopp te boobaa nag boobaa askan bi kenn dootu fu mën a dund jungle bi maanaam àll bi sax moo koy gën parce que lu mu bon bon foofu sax xëy na am na yoo xam ne dinañ ñii ñu ber ñii ñu ber ñii ñu ber mais fii seen Sénégal bi ñu toll nii foog ñu xoolaat li nga xam ne mooy suñu yoon ndaxte lañuy ñuy doxale si dossier bi boobu ba léegi tey na xelu képp te it képp koo xam ne doomu réew mi nga gën nga tiit si li nga xam ne moom mooy sa sa justice su réew. d'accord euh, mais euh, ki nga xamante ni mooy juge Samba Sall dafa sàkkuwaat ci assemblée nationale ngir ñu dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko ci beneen dossier. Euh, xam naa ne nag ñiy déglu pour ñu expliquer leen euh, bi ñu dindee malaanu kiraay bu njëkk ba loolu benn dossier la boo xam ne dafa jëm ci wàllum siif waaye nag beneen lu ñu koy tuumalaat lu jëm ci wàllum euh, appel à l'insurrection bëgg a pëccëxe am réew ñoom ñu sàkkuwaat ci assemblée ngir ñu dindiwaat malaanu kiraay mu nekk kon ay charge yu bari yoo xamante ni ñoo ngi koy teg ci ki nga xam ne tey mooy Ousmane Sonko loolu tamit est-ce que du ko gën a indil ay jafe-jafe Daouda Dieng Doudou Dieng waaw xam nga euh, <laughs> mbir moom man comme euh, suma xam-xam màcc lool si li xam mooy wàllu yoon li ma si wax na lenn la tey si suba rek déglu naa ki nga xam ne moom mooy Abdou Mbow muy wax ne ñoom jotaguñu benn lettre buy levewaat parce que moom jàpp na ne euh, député benn mën naan kiiraay la boo ko bu ba levé levé nga ko donc amatul certificat donc boo mooy li ma la wax sànq rek que bu fekkee ni juge bi bind na wax na lool euh, Abdou Mbow wax lii <laughs> ñoom ñaar ñoom seen ñaari wax la léegi nañ xool ba xam seen ñaari wax yooyu fan lay mujj parce que ñoom ñëpp ñoom ñoo nekk si nguur ñoo yor nguur gi fi mu toll nii. tey jii kii xëj na dëgg la dañu wax naan séparation des pouvoirs mais xam nañu fi séparation du pouvoir au Sénégal amul entre la justice l'Assemblée et le pouvoir. xam nañ ne tey jii ña sa assemblée pouvoir bi moo leen fa bàyyi fu ñu leen xool la ñu xooloo xam nañ ne ñeen ñett si ñoom ñi nga xam ñoo ne si justice bi aussi pouvoir bi moo leen fi bàyyi fu ñu leen xool la leen xool comme ñoom nag kii moo ne bind na pour lever kenn lever ñun jot ñu lettre buy lever jot ñu ñu toog seetaan ñun ñi nga xam ne euh, ay spectateur boobaa ñu seetaan ba xam fan la wàññi di mujjee ci gëtëm. d'accord léegi euh, démb daan nañu jël Ousmane sonk yóbbu ko fi nga xam ne mooy section de recherche euh, war koo déglu. altine ji nga xamante ni tey euh, moom la ñu daal di euh, déglu moom la ñu daal di dëgmal mais euh, Doudou li nga xamante ni nag am na ci ci ci mbir mi ci Sénégal mooy ay manifestation yu baree bari yoo xamante ni tey am na ci manifestation yooyu yéen waa PASTEF nan ngeen gisee manifestation yooyu te ba booba léegi tamit dégguñu wala gisuñu yéen ngeen def benn communiqué appel woo xale yi pour ñu dal wala dara euh, loolu lu war a loolu euh, dudu waaw xam nga ñun dañoo ootee li nga xam ne mooy résistance bi nga xam ne moom la suñu constitution may maanaam mbéj bépp la résistance mooy mbéj mbéj nag am na ñoo xam boo ne résistance am na ñoom ñoom it ñu jàpp ne baatu résistance boobu euh, président Ousmane Sonko ñoom ñoom jël nañ seen baatu bopp mooy insurrection maanaam koo xam ne dafa jóg ngir daaneel nguur loolu mooy insurrection tey ñun ay républicain lañ ñun dañoo gëm li nga xam ne mooy démocratie kon duñu ñu woote mukk ay insurrection baat la bu doy waar boo xam ne ñoom ñoo xam ne ñu si yóbbu te it démb si waxtaanu euh, ki nga xam ne mooy déclaration bi ministre de l'intérieur def feeñ na si ay baatu terrorisme ay baatu insurrection ay baatu euh, nu ñu tudd vandalisme euh, baatu bëri yoo xam ne dafa am lu ñuy layal ñoom lu ñu bëgg layal. constipation constipation à euh, euh, contre l'État dafa am lu ñu bëgg layal maanaam di teg ay pexe ay ay ay ay ay ay ay complot ci État loolu yëpp ay baat la yu ñuy layal loo xam ne waxuñ boobu li ñuy wax waxuñu ak sénégalais yi mais étranger la ñuy waxal maanaam ay ONU. ay ay ay euh, Union ñoo ñooñu lay waxal pour layal seen attaques yi ñuy def si askan bi pour layal li nga xam ne am na si biir Sénégal mais waxuñu ak askanu Sénégal te la ñu utiliser lu doy parce que damay fàttali ne tey pré euh, kii nga xam ne mooy ministre de l'intérieur teguñu ko pour ñu wax ne am na ay terrorisme biir Sénégal déedéet xam nga lan lan la woon wax jàpp naa ñi ay terrorisme lañu donc am na fi c'est lappen la que loolu da ngay tiital sa askan sax boo ne ya a des terrorisme si biir mouvement yi si nangam nangam loolu tiital sa askan la da ngay amati sa askan te loolu xaarewuñ ko si ñoom li ñu doon xaare si moom te mu doon xel mooy mu jàpp ñooñu ne ñii gis ngeen ñu ngi ñii duñu ay Sénégal wala duñu ay c'est des terroristes loolu moo doon yoon wala ñu jàpp ne ñii kat dañuy compléter si état bi si ay firnde lu leer. comme comme jàpp nañ la la war wax sax dafa war a wax jàpp nañ ne ay terroristes lañ ndax ja présumé lay doon. te te tribunal ba ñoom ñoo war a àtte. <laughs> te ñoo war a àtte c'est-à-dire tey jii xam nga li am solo mooy. ñoom boo seet dafa ne nous a dafa ne ñoom am nañ ay xibaar yu leer ne nangam bu yow kon contracté leen ba jàpp leen nga wax sa askan bul tiital sa askan cest à li askan bi tiit rek doy na sëkk bul yokk tiitaange. Ah, mais manifestation yi euh, ni mu doyee waar ci ci ci ndakaaru ak ci biir réew mi yëpp. Mhm. Euh, yéen waa Pastef lu tax woote leen dal ngeen def conférence de presse wala communiqué woo askan ñaan la dal. parce que ñun réew mi te askan bi ñi génn du Pastef kese Pastef moom wootewul taal Pastef ootewul fitna Pastef li mu oote mooy bañ gis nga bañ nag dafa am plusieurs façons de bañ dama ne li bi ñu daan naan résistance booy jàngi école ay cm yu mel dañ la wax naan résistance y a deux formes de résistance résistance armée ak résistance pacifique tey boo doon xool ñi si ñi ñuy wax naan des résistance pacifique ñi nga xam ne dañoo dañ doon bañ si bañal boo xam ne bal tàkkul deret tuurul ñoo si bëri ci lan la si cité dañ si cité ñu mel ne suñu marabu yi fi nekk ay Seydi Hadji Malick ay suñu maam euh, maam borom Touba ak ñeneen ak maam Limam donc ñoon lañ siy tudd boo jëlee résistance amee mu ñu xam dañoo jël seen ngànnaay di xeex dañ si wax lu mel ne Cheikh Oumar Foutiyou et cetera et cetera donc dafa am plusieurs formes de résistance moo tax ñun tey jii li nga xam ne moom la ñu woote te suñu yoon mayu ko mooy résistance si li nga xam ne mooy nooteel bi nga xam ne moom moo am te ñu seetlu ko depuis 2012 ba léegi mu gën a accentué wu nag moo tax entre 2012 2012 Sénégal dañoo dem ba foog ne sax dañ leen a liggéey ba kenn mënatu la wax ñu def lu leen neex fekk ne Sénégal dañ lay may benn temps de répit wax la na xëy nag yow sa xel dina dellusiwaat bu nee ba 2019 jeex mu gañewaat yow boo demee bañ na gañe naa ak juróom téeméer yu ne juróom fukk ak juróom-ñett yëpp mën lañu woteel mais nga la kooku boo xamoon ay ñi ñu lay sànni xees sax dawalal sa waaxu waaxu sa waaxu yu tar nga dem parce que da nga xam ni dañ lay tardel parce que yow ñi nga ëpp si askan bi nee nga yow lañu àndal kon waroo leen gersu dañ lay tardé mais bu fekkee da nga yëg kaw garab ku la sànni benn xeer bu nag nga wàcc jël xeer bu mag dóor ko ko bugg yëgaat doo ma sa àgg kon kooku dafay mel ni la nga xam ne moom la gañoon sa élection yi sax xel de si tey parce que ku gañe tam wóor na gañe doo nekk du xool gauche du xool droite la ngay doxal moom ngay doxal te boo xoolee façon doxinam gis nekk mooy damay faral di wax ne njiit bu yor jikkoy mbëtt dafay doy waar jikkoy mbëtt mooy ku jiitu ku lay jiitu si kanam nga ne day dàq samay gunóor ku la ku tolloog yow nga ne kii daf muy di mbagg ku la féete nga ne kii day dëgg sama geen kooku dina kilifa gu naqaree àndal la moo tax kilifa du yor jikkoy mbëtt loolu nag dañ koy bàyyeeloo xel kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite tey jii boo xoolee ñam daan àndal ñëpp am na ñoo xam écarté parce que yaakaar ne am na ñu bëgg si ñoom ñi mu nekkal ñi mu ngi ak ñoom mais seen xel teewul si ñoom ña sa gannaaw muy opposition yi ñu ngi naan ñii kat la ma donc finalement kooku mbiram du neex dëkkandoom ak dëkkoog moom du neex moo tax ñun fi ñu jàpp tey mooy kenn rek moo yor baatu mën a wax askan bi génn te kilifa yëpp wax ko boom xam-xam yëpp wax ne kenn kese moo yor la cette force parce que Ousmane président Ousmane bu génnoon wax it wala ñu bind communiqué du tax xale bàyyi du tax askan bi bàyyi parce que askan bi am na ñoo xam ne la bokk nañ Pastef mais ñi si ëpp. mooy askan bi nga xam ne dañ leen yàgg noog si ay couvre-feu yàgg leen a noog si ay état d'urgence yàgg leen a nottu lekkatuñu naanatuñu ñu am situation bu difficile ñooñu ñoo dem ba am un méttitu xol ba lu ëpp tuuru loolu nag moo tuuru déversé aussi si lii parce que mooy manifestation masut am si Sénégal masut a fee gin ñis masut ko am bi kon boobu bëli na président ne mu mu xaam si ruqam toog waxul demul ñëwul boobaa moom la ñuy wax ne ñu génn wax te génn wax boobu du def lu dul yëkkati ko moom bu yaakaar ni su génnee wax day tuutal boppam déedéet nit dina toll foo xam ne soo juumee xam ne yoon bi ma tegu baaxul si nit si jullit war nga mën a dellu si wàcce sa bopp gis ne askan bi kat lii ñuy def baaxul nañ leen ko bàyyi lii nga xam ne moom la ñu ñu muy ruumandaat muy ay complot ak kidnap yi nañ ko teg si suuf yoon def benn parce que ñu nit dañ koy wax te su ñu seeñoon tey ñu dem tribunal mais yoon atte si ni mu gën a leeral yi parce que dañoo bugg setal suñu deru kii nga xam ne set na wecc sax parce que dafay mel ne nga jël benn kii sotti ko si benn lu rata day day day mbaxtal wadd mais nag yoon atte comme nit sénégalise boo xam ne yéen nee ngeen gëmu leen euh, amu leen confiance ci justice. waaw non boo déggee moo tax loolu moo tax ma ne bu fekkee ne yoon tegu na fa mu way rek te ñu doxal li nga xam ne mooy yoon xam nga doxal lii yoon mooy yoon tege fa moo la tege bu boobaa ñun li ñu bëgg mooy ñu atte lii yoon def la nga xam ne mooy si war waru xam léegi euh, <clears throat> manifestation yi bari na. Euh, euh, <coughs> euh, bàlleen ma ci biir ndakaaru ak ci biir réew mi yépp ñoo ngi dàjji li nga xamante ni mooy tey ay magasin Auchan di yàq ay station essence di jëlli ci biir Auchan yi di di di yóbbu ñenn ñi jàpp nañ ne jafe-jafe yi nga xamante ni tey sax coronavirus teg na ko ñenn ñi ak euh, askan bi nga xamante ni ñenn ñi euh, dañoo sonn mais yow acte yooyu ñuy def di cibler tamit li nga xamante ni tey mooy li ñenn ñi jàpp ne moomeelu nasaraan si la euh, ban ban ban ban analyse nga si def wala yow noo ko gisee. mooy ne li ñu wax olof Ndiaye di wax ay du yem si bopp borom gis nga mbir di nga ko di dina dina di nga ko seetaan en tant que au nga teel a fay safara buy jóg yow nga nekk kilifa si dëkk si biir kër. safara mu ngi tàkk nga gis safara ngi nii nga xam ko ne ah lii de safara au lieu nga suur ko nga ut na eh utal ndox sotti fii mu fay nga génn dem boo mootul bu ñu la oo mooy sa kër ngay takk te loolu moo dal kii nga xam ne mooy président Macky Sall si lii xew parce que mbir mi di ruumandaat di dem di ruumandaat di dem au lieu mu teel a fay wax ja defu ko te it boobu léegi mu ngi toog mbir maa ngi takk mu toog di seetaan. léegi lan mooy pexe fi ne nii. pexe bi lenn kese la moo ko yor mooy lii mu teg si suuf wax ji mu génne addu ak askan bi wax leen li nga xam ne moom la askan bi bëgg dégg parce que nit ki askan bi ñoo ko fi teg kon li dégg na si fekk ma yéen a ma dénk lii ngeen bëgg ma doxalee doxalee naa noonu mu jeex bu ko defoon suba balaa ngoon Sénégal fay. mais am na ñoo bari ñoo xamante ni dañoo wax ne euh, tey yéen yéen moom leer na ma ne tey président bu mag Sall jëloon mbir mi teg ci suuf mm-hmm. yéen euh, jubilé ngeen di def mm-hmm. ne deltu na ginnaaw euh, ñu newoon nañ ko rapport de force. Mm-hmm. presse bi presse bi commencé bind Ousmane Sonko rapport de force bi Ousmane Sonko nangam ak nangam est-ce que du loolu la la nguur di bañ te même bu si deltoo ginnaaw ñenn ñi dañu jàpp ne nguur dafa oyof. Euh, loolu tamit euh, yow ndax gisee woo ko noonu. non non xam nga xam moo li ma wax sànq dama ne gis nga ki nga xam ne askan moo li dénk bu askan bi demee ba nekk si jafe-jafe fekkal askan bi sa li ñu bëgg du gàcc au contraire da koy yëkkati tey am na benn discours bu président Macky Sall mënoon génn def ko ngi dalal lii. yàlla xam na ne boo moytul dina si gagné yeneen leneen dina si gagné yeneen sénégalais parce que même moom si biir ay ñi nga xam ne ñoo ko jàppale woon am na ñu bëri ñoo xam ne mu toll nii tey ji découragé nañ am na ñu bëri ñoo xam tey ji xamat xàmmeetuñ ki leen jiite ba tey du moyu nañ ko kon tey ñooñu bu leen soxla waatoon wala soxla ñeneen ñoo xam ne tey ñu ngi doon hésité man je pense que la meilleure façon mooy mu génne def un discours responsable un discours boo xam ne day xam dañu xam ne kii kat wax dëgg fa que la ñuy wax naa parce que xam nañ ne tey nguur moo doole Pastef wala askan bi day metti parce que armée bu génnoon nguur kenn man li olof Ndiaye nguur kenn man te xeex ak moom kon kii yor doole soo baalee. mais mais peuple bu déterminé wu tamit kenn mënut a xeex ak moom waaw non peuple bu déterminé kenn a xeex ak moom parce que peuple mooy lépp moo sut lépp parce que peuple bu dee moo tax sax d'ailleurs gis nga le peuple est au-dessous de la constition le peuple est au-dessous de la constitution parce que tey constitution man na peuple taxaw ne nangam mu constitution day xaaj day day jox day toxu kon tey bu peuple bi. lu ëpp bu fekkee nag jàngat bi moo tax même démb c'est domage jàngat bi nga xam ne ñoom lañ woon am si li xew si réew mi ba tey amuñu ko ba tey ñu ngi jéem a ñi ñi mais loolu aussi dafa am leneen lu muy wane signal mooy ne am na ak ragal am na ak fit gu dem si seen si ñoom. waaw mais gis nañ euh, ministre de l'intérieur déclaration bi mu def dem na bay wax ay terroristes ak euh, xeet yooyu mm. mais mbir mi tamit. Euh, est-ce que amul lu ci rax ay bandi yoo xamante ni rax nañ ci mbir mi ndax moom nee na gis na ñoo xam ne sax dañoo yor ay fetal euh, di tiire euh, ay si si bërëbu liggéeykaay jàmbur yeeg yooyu loolu moom noo ko gisee. waaw moom bu nee gis na ko ña ko gis wala nañ jàpp ñooñu wax ji dafay yomb cest à loolu lañ naan jàpp ñi si biir saak mais toofee naan gis naa ko te jàppoo ñooñu won ko Sénégal yi non boobaa man wax jooju waxu wax ju daanu sareet la gis nga ñeneen ñi wax ni gis nañ ñu am ay gourdin dañ leen a foto ak seen gourdin wan ne ñii duñu ay policier te ñu ngi ànd policiers yi dañ leen photo am seen i seen am si ay renseignements si ñoom yor liste yëpp mais ñoom loolu la wax waroon def bu doon dañ leen a wane wala ñu jàpp ay nit nit ñi ngi nii dañoo jàpp ñoo xam ne si biir man dañoo say du dóor di xeex ak nangam boobaa ñu xam. d'accord mais yow euh, ñi génn ci mbedd mi nii euh, bëri nañ génn xeetu bëri goo xamante ni jaaxal nañu bëri mm-hmm. ndax tey par exemple tey bu doon euh, gox yi nga xam ne. Euh, ndax képp kuy politique am nga ay base politique su doon fi Ousmane Sonko amee base politique sax ci Ndakaaru wala ci euh, <clears throat> wala ci Ziguinchor sax ñu ne ñu ne amaana euh, ñi yëngatu ci wàllum politique la mais dañu gis ne yeneen région yi nga xam ne sax Ousmane sonk amu foon ay ay ay ay voix yu bari gis nañ ne ñooñu tamit dañu dañu dañu dañu jóg Euh, kon manifestation bi ni yow sa commentaire euh, noo ko gisee daal ñi politique la wala askan la boo xamante ni ñoom dafa am message yoo xam ne ñoo ngi koy yónnee kilifa yi. waaw euh, ñaar yëpp am na si gis nga bu wax la sëñ bi mooy ne président Ousmane Sonko dañ ko dañoo dañoo ñoom moo tax man dama naan état. service de renseignement jox nañ ko ay renseignement yi de mais xëy na ñoom ñoo si ñoo si dëgg seen tànk di def leen neex xam nañ ne président Ousmane Sonko est représenté le Pastef est représenté partout dans le Sénégal te ñun li ñuy wax xam nañ ko on est représenté partout te fépp fu ñu dem boo xoolee même dëkkam ka Fatick moo xam Fuuta gee mu wax ñu sommes deuxième si si gannaaw fépp fu mu mu dóor rek ñu fekk ñu ngi si gannaaw xam na bu baax ne Pastef est partout dans le Sénégal am na foo xam ne sa nekk nañ fa bu xëy na boo dégg moo en tant que président waaw moom laay ñëw si laay ñëw woon la ne mooy li nga wax nekk ne euh, euh, dëkk yi am na ñoo xam ñu ngi fa lan lees nekk li am solo mooy wax nga ko mooy ne tey kii nga xam ne mooy euh, askan bi lu su ëpp ñoo génne mooy wane ne c'est un signal pour le président Macky Sall pour wan ko ne nooteel gi dafa doy parce que am na ñu génn ñoo xam ne démocratie la ñuy xeex am na ñu génn ñoo xam ne xiif gi la ñuy xeex am ñu génn ñoo xam ne nooteel gi la ñuy xeex donc loolu dafa uuteeg li nga xam ne moom la Pastef sax di xeex parce que boo xoolee même si mouvement yi dafa am ñetti façon slogan yuy génn ñoo bañ kenn duñ kenn duñu noot ñii naan ñoo bañ dañuy suñu démocratie kenn du ko salfaañe ñii naan libéré Ousmane Sonko. kon boo xoolee pacc pàcc yooyu ñoo dayee si mbir mi mu doon benn cocktail explosif boo xam ne tey jii moo dëgg fa yàlla ñoo wala ut sapp ñoom ñooy le seul sapp bu ko la fay. Ah, waaw mais euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Euh, Ousmane Sonko wax na ko am na tamit analyse yu bari yu ko wax yoo xamante ni dañoo wax ne Ousmane Sonko bu génnee ci lii ak victoire mooy xàll nañ ko buntu pale ba. waaw xam nga pale moom ak ki doon président yàlla rek ko xam mais ñun suñu rëwal go xam nga mooy président Ousmane Sonko il a toujours dit. c' est pas une fin en soi le fait d' être président de parce que xam na ne président kenn mënu ko doon ku dul yàlla moo koy du doomu aadama mais moom li muy joué fi mu nii mooy partition rek lay apporter si li nga xam mooy démocratie réew mooy li nga xam ne moom askan bi jël nañ seen impôt dugal ko école fayal ko mu jàng ba yàlla dogal mu am métier muy liggéey si muy liggéeyal askan bi ba yàlla dogal mu xam ne moom la mu toog képp ne mukk mukkaale si biir euh, bureau am di lekk njabootam di lekk mu ne kon delloowal askan wi njukkal looloo tax mu sóobu si li nga xam mooy politique sóobu mu sóobu si politique ngir taxawal askan bi la pour wan leen ubbi seen bët te yàlla dogal na tey jii même moom tey jii bu ko yàlla joxoon réew mi mu bëgg doxee ne réew mi askan bi si bopp ñëw jë parce que yee na leen parce que dama daan dégg sëñ Abbas Sall radiyallahu taala anhu daan wax ne yee leen nit ñi moo gën ngeen leen di waar ñoom au lieu askan bi ñu waar leen mais dafa yee askan ba kenn ku ne ku waxati di nga am benn capacité de discernement capacité de de de de critique boo xam ne moo lay permettre nga xam ne kat kat ñii li ñu wax yanu na maanaam wala yanu na tey askan bi nag yeewu nañ xam nañ li réew di doxee loolu nag moom bon pour man la a déjà atteint une partie de sa mission l'autre partie de sa mission c'est jiite réew mi loolu nag si loxo yàlla rek bu ko yàlla names moom incha allah dina ko doon. d'accord léegi euh, yéen waa PASTEF am nañu jot a gaañu ci manifestation yi. ba léegi nii liiraguma benn communiqué boo xam ne yéen yéen a ko signé euh, di jaale ñooñu beneen bi tamit euh, duudu fii mbir mi toll nii est-ce que Ousmane Sonko mënutoon a joxe autorisation ngeen bind communiqué wax askan bi ñu bañ a ñu bañ yàq waaye ne bu la neexee ñu continuer seen résistance ak seen manifestation mais bàyyi yàq ki waaw ki nit ki matte xam nga mënatu mënatu la wax. mënatul la jox ko mënatu mais am na ko ne si parti yu ne waa parti waaw mais non parti mu ngi dox mais da nga ne. Euh, président ndax ma mën na ko joxe ndigal ñu dang ma xam nga président fi mu toll dèjà moom teg nañ ko de côté moom nëbb nañ ko làkk nañ ko jànk jant bi ñoom ñoo xam ne ñu def lañu teg moom fa mu ne kon li am solo mooy ñun tey jii ñu ngi toog ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi suñu biir parti moo xam ñi ñu jàpp te ñuy ñaan yàlla ñu génn fa ak jàmm dafa ñu nekk yàlla taxaw leen fa tey di oo état bi ci ñu libéré leen ñu mu gën a gaawee moo xam xale yeeg mag ñi jàpp ñëpp si jàpp boo xam ne dama ngeen injustice la ñi nga xam ne yàlla dogal ñu ñàkk seen bakkan ñiy jaale seen mbokk au nom de tout le parti Pastef ñu leen di jaale di ñaan yàlla fa ñu jëm yàlla nañ fa fekk ngëneel ak xéewal gu ëpp jafe-jafe yi ñu bàyyi si fii si réew te incha allah nañ ko fekk kon ndaxte man damay jàpp ne jihaat lañ parce que it loolu mooy xeex li nga xam ne mooy sam li nga xam ne mooy nooteel yi fi ne la sa nekk leneen mooy lan mooy ne lii nga xam ne moom la ñuy dund te président Ousmane Sonko ñun man li nga xam ne ñu ngi koy def ñun parce que mooy képp koo xam ne am nga si gaañu gaañu képp koo xam ne am nga si ay jafe-jafe soo xam wàllu yoon képp koo xam ne si ñàkk nga si bakkan li si Pastef wala taxawee mu ngi ko si taxawee mu ngi ko dox parce que même si mbënd mi PS passé am na ñoo xam ne Pastef waxul parce que Pastef dafa kenn ko xam ne mu def da di di génn ay télé du woote di mais li si wax yow na askan bi xam ne Pastef mu ngi def li si si wax si diggante ak njaboot googu mais manifestation yii nii bu dee état bi jógul wax ndax kilifa di nii ñoom nee nañu wax nañu ak Macky Sall ba pare léegi bu Macky Sall jógut wax ak askanu Sénégal euh, lan nga jàpp ne moo ci nara <clears throat> mbir mi fan la nara yegg ak ak bu doon wax ak askan wi tey lan nga jàpp ne moom la war a wax. fa mu na la yegg wax dëgg fa yàlla du doon lu neex kenn parce que wax nga sànq bi wax askan bu déterminé wu kenn mënu ko téye dafay mel ne géej gu màbb. te géej gu màbb nag géej géej gu euh, màbb kenn xamul fu muy def ak yan yàq-yàq la ma def te loolu mën na dem ba si nguuram boobaa mën na ko fragiliser tey ji nañ xam ne l' état est à quatre jeunes et à euh, quatre appuis li ko mbër yi di waxee mu ngi si quatre appuis kon na fexe wala sax mën nañu jeex trois appuis parce que bu nekkee quatre appuis sax nee nañ euh, mooy daanu nga kon mën nañu jàpp ne état bi tey jii il est à genoux l' état actuellement nañu xam ne il il est à kon am force ak li nga xam ne mooy xel bàyyi seytaan dàq ci ñoom ñu am xel ak xalaat gu leer yàlla leeral seen xalaat ba ñu mën a jóg taxaw taxaw askan bi te loolu nag leen rek moo si mën a ne mooy président génne def un discours bu set discours bu wér bu wan ne askan bi kat man mi ngeen jiital dégg naa seen wax dégg naa seen kàddu ay seen kàddu naa ko def bu ko defoon nag askan bi sedd te leneen la sa nekk mooy ñun li nga xam ne moom la ñu moom la ñu bëgg si li nga xam ne mooy askan bi mooy ne li nga xam ne am nañ droit demander seen résistance am nañ droit montrer seen résistance mais ñun ci amul kenn ko xam ne na yebal nga yàq alalu nit ah, alalu jàmm mais dañoo gis ñu yenn kër kilifa yu kër kilifa ak euh, ay groupe de presse mm-hmm. ak ay maire rek ay tribunal ak yu mel noonu euh, ndaw ñi di ko taal mm-hmm. loolu moom lu mu waaw loolu moom wax dëgg fi yàlla xam nga wa euh, wax nga si biir kàddu maanaam ñii ñii ñii gàmm ak ñii raas dem benn du ñu benn tey jii lépp lu baax lu am rek am na ñoo xam ne dañu si profité mooy wane ne xëy na am na bande yoo xam ne sax xëy na dañ daan dem di dogal nit ñi dogal nit ñi gis ñu gisatuñ si ñuy dara yu mel dañ siy profité yàq moo tax li naan ay du yam si boppam moo tax buy commencé na teel a fay parce que dina am ñoo xam ne ñii mën nañu jóg paisiblement dox ko te boo xoolee sëñ Sénégal bés bu ñu fa bàyyee gars yi marche correctement doo dégg benn jafe-jafe ñii nañ marche bu ñibbi duñu sàcc kenn du ñu teg kenn du ñu def moo tax Sénégal loolu la ñu a bàyyi xel. bu ñu nee ñan ñu def nangam rek ñu encadré ñu def ko après ku nekk tas gis nga le fait que nit ki am naxa yuuxu ko mu génne wala yenn saa nga am nax ñu ne la jooyal jooyal jooyal bàyyi la nga jooy ba giif dafa am lu bëri lu mu génn si mais boo ko bàyyee muy najis bi kooku day dem ba kay roñ bu explosé rek day doy wax si Sénégal. mais euh, tuuma bi ñu leen di tuumaal ne da ngeen bëgg taal réew mi loo ci tontu. waaw ñu waa ñun ñu som des républicains. taal réew mi boobaa ñun xanaa suñu njaboot newu fi xanaa suñu waajur newu fi suñuy mbokk ñi fi te ñun si biir réew mi xamuñu faneen ñun Sénégal rek lañ xam amuñu ay double nationalité amuñu faneen kon bu ñu taal réew mi ñi nga xam ne ñoo bëgg ñu taal réew mi kay mooy ñu am ay double nationalité nga xam bu ñu ko taalee ñoom tey jii moo tax ñu def forcing bi moo tax nanguñu dégg gumba tax lu nangu nanguñu dégg ñooñu la ñu xalaat ne ñoo bëgg taal réew mi te bu ëllëgee ñoom dañuy daw génn parce que am nañ faneen fu ñu mën a nekk mais ñun xamuñu feneen fu Sénégal kon Sénégal bi ñu xam ñun dañu koy sàmmal suñu bopp ñun li ñu bëgg mooy tey jii ñu dal état fexe ba lii dal li koy dale nag xam na ko bu ko defee rek affaire bi dal te bu ko dalee leen rek lañ si jariñoo mooy moom déjà dina mën a continuer nguuram exerce li muy exerce ba 2024 ngal la ñu dem élection ñu gagné ko si jàmm ak salaam mu dem si jàmm ñu gérer suñu réew si jàmm ñu sommes des républicains on ne veut pas ñii li nga xam ne moom mooy ñi euh, ñuy wax ay insurrection bëgguñu. Euh, lenn loo xam ne day ñu réew mi bëgg nañ réew mi am si jàmm ki ko jiite am jàmm gérer ko si jàmm bu jóge fi si jàmm loolu rek lañu bëgg. léegi euh, Doudou euh, Dieng suñu mujjantal laaj démb dafa am xibaar yu doon daw. Hmm. daw ka ne ñii naan Ousmane Sonko dañ ko jëlee section de recherche drogué ko boole ko ak jigéen yu mel noonu xibaar boobu lan nga ciy tontu naan am na ay vidéo yu ñu bëgg a génne ci Ousmane Sonko mu ak xale bu jigéen ak yooyu. Hmm. waaw vidéo boobu ñun ñëpp a gisandoo. Euh, li may wax rek ñun euh, tey jii du ñu dara du ñu dëggal dara ndaxte it dañoo xam ban camp la ñuy yaakaar lool du ñu weddi dara du ñu dëggal dara mais en tout cas moo tax sànq moo wax ni moo tax sa prisonnier toujours bàyyi ko avocat di ko accès di accès di si moom bu avocat am di accès di moom dina xam ban état la nekk ak si lan la nekk moo tax ñun tey jii daal li ñuy wax mooy ne président Ousmane wax na ko ba mu fay dugg wér gu yaram dafa duggee jàmm ak salaam amul benn maladie boo xam ne. Ah. man man dal na ko léegi su ngeen gisoon vidéo boo xamante ni monté nañ ko ma ànd ak ndaw si. si ban état d'esprit ngeen ne. non ñun ñu soon toujours fort xam nga ñun dañoo xam suñu xam nga xam sa waay moo gën ñu oo la ko wax. tey jii ñu xam nañ kan mooy président Ousmane Sonko moi je te dis une chose et eh, président Ousmane ñu tey yàlla dimbali ñun dañoo dañoo dañoo dañoo nekkoon ndaw àndandoo depuis Ziguinchor man waa Mbour laa. Euh, mais yàlla da ko dogal depuis xale dama dama dama dama dañ ma yóbbu Ziguinchor ma fay jàng di vacances si Mbour et cetera ma xam ko bu baax xam ko si jikko xam ko su lu wér jour bi ma njëkkee dégg lii xibaar bi bu ma daanoo suma boobu jour ba yàlla da ko dogal suñu am yéen kilifa yu wàññeeku mais bi ñu ma ko dee dem prêté wu ma sa attention parce que damay xam ki ñuy wax kan la man am na koo xam ne dafay gis nit da nga xam bu bun la yee ne la diw moo def sàngam nga ne dëgg la wala diw def na sàngam nga ne du dëgg foofu laa toll si moom du question ngëm-ngëmu euh, maanaam comme ku dof wala ndéedéet man xam nit ki xam jikko ma ko gën. mais jàppoo ne ñoom am nañu ay preuve vidéo wala ojo wala image. no non non non non amuñu benn preuve ma je sais que ne amuñu benn preuve maintenant nag nous sommes dans une dans un monde boo xam tey jii. ak l' ak les les euh, euh, moyens de les les les la nouvelle technologie des moyens de communication yëpp lu nekk mën nag lu nekk nit ñi mën nañ ko mais je sais en âme et conscience. ay vidéo montage nga njortoo. loolu moom mën nañ ko waaye mooy moo tax mën na am vidéo montage bu leen defee si biir mais bu ñu ko defee teg ko mën ñoo yàqal askan bi askan mi am nañ une déjà une idée claire de kan mooy seen jiit. bañ koy tànn moom tànnul boppam dama la wax nit ñee ko dem tànn ji mu ñëw jiite parce que lañ ko tànnee nag jub la ngor ak diine moo tax ñu tànn ko. jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf ñu ngi leen sant di yàlla Euh, ay bi yàlla na ko yàlla gaaw a fay te mu doon li gën si askan bi gën si si si si réew mi te ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñooy dem au nom de tout le parti Pastef ñu ngi leen di jaal seeni waajur yi ñaan yàlla yàlla yërëm yi xaale àjjana ñi nga xam ne ñoo si am ay gaañu gaañu yàlla yàlla yëkkati leen fëgg seen bopp delloo leen seen sago ñu ñaan yàlla fii nga xam mooy suñu président fa mu ne yàlla na ko fa yàlla wéttali si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu génn si ak jàmm salaam Euh, jërëjëf euh, Doudou Dieng ñu fàttali na yow euh, membre nga ci parti PASTEF yow yaa nekk tamit coordonnateur adjoint kuréel gi nga xamante ni moo ëmb mboolem jàngalekat yi nekk ci PASTEF yow la ñu invité woon tey ci pencum réew mi ci réew mi FM Abdou Khadir Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.